léegi nag bon la moy njeexital bi Macky man du wax du koy waxantou de. waaw wax yi mais mais njeexital yow yow lo ci xalat yow. Motax sank bima nal ay euh, yu bari ni, ne schéma bii ñu wone ni, man j'ai l'impression que c'est pas le vrai schéma de Macky Sall. pour le vrai schéma c'est quoi. non am am na yu comme comme yéen jox ñu un peu ben indice rek. non xam nga xam nga léegi moom wax na. Mm. nee naa la man ton bi je déplore ton bi. waaw mais pour man tëbu rek wax. il n'est pas content de son équipe. Mm-hmm. loolu la wone xam nga affaire yi wala. mais mais mais am nañu pour li nga wax noonu. Euh, li nga bañ a junj mais am na ñu ne Macky mi capable na dem ba ca pandaw ba ba ma Amadou Ba ndànk roofaat keneen. pourtant yow sànq ba tey loolu ñuy wax mais faisabilité bi nag. waaw mais waaw ak timing beeg yooyu. faisabilité bi ci report la mën a nekk. waaw loolu ci report. loolu la ci a nekk. moo affaire report boobu moom fàtte ko bàyyi ko erreur. bàyyi bàyyi ko xel bu baax a baax. waaw a baax.